information que ne village bi dafa am ñaari dese ñaari paa yu yu yu nu waaw dañoo am dese yu mag moo waral parents parents d'élèves yi ñu si bëri ñëwuñu ñu ngi si dese bi quoi te ñooñu ay kilifa leen si dëkk bi xam naa loolu moo tax parents d'élèves yi ñëwuñu mais loolu moom dañ leen koy comprendre dëj moom kenn mënu ko kii ax leneen à part ça ñeneen ñi nga xamante ne seen parents yi peut-être dañu jàpp waaw mais li ñu leen waxoon keroog rek li ñu taxoon jóg mooy comme dañu créé benn école football boo xamante ne Kër Massar la nekk mooy école football boo xam ne seen doom yi jigéen ñoo fi nekk dafay baax chaque jour bu ñu toogee un yoo xamante ñu ngi gis seen doom yi ñi nga xam ne yéenay yi war na am benn jour boo xam ne war nañ toog ak yéen ngeen xam seen doom si lan leen nekkoon loolu moo taxoon ñu éviter ñu bëggoon ngeen ñëw yéen ñëpp waaw rawatina aussi ngeen bin amee fii si académie bi benn parrain boo xamante ne seetaan nañu benn yoon saa su xale yi nekkee si activité lu ñuy def rek ñoom da siy ñëw ax dooleem jàppale ñu si. moo mayoon ñu ay kaye ak ay bic ak ay lo am na yoo xam ne sax des na si biir fii parce que am na yeneen élèves yoo xamante ne gëj nañ leen gis ñoom leen leen réserver comme li fi nekk matul ñu ne neen tas li jox leen après ñee bu ñëwee ñu xool leen jox. dafay baax parents élèves yi xam ñi nga xam ne ñoo gérer seen doom yi depuis boobu ba léegi si yan condition leen nekkee en même temps ñu xam tamit ñan ñoo leen di jàppale waaw ki ñuy jàppale nag mooy ki nga xamante ne mooy Pa Moussa Camara moo nekk nii xam naa xale yi waaw depuis saa yu ñu def programme dañuy jàppale bu baax a baax si ay moyens boppam nekkul ministre nekkul deputé nekkul dara comprendre dëkk yi moo ko ñor population bi ñor ko moo waral lépp lu ñuy def rek da ciy dugal loxoom. académie bi nag mu jël ko def ko yëfu boppam may ñu ay mayow te aussi boobu ba léegi mu siy jàpp ñu def ko suñu parrain dafay baax nag parents yi ñoo xam bëggoon nañ parents yëpp daje fi mais lii la yàlla dogal euh, xam naa dañuy jox si ngoo mu mu wax si après comme ça ñu bañ a guddal. comme temps bi dafa xat te dañu nekk si yeneen activité moom aussi tam dafa nekk si yeneen activité jaa ngi jëf. mbooloo ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di rafetlu waaye teewaay bu baax a baax di am contentement bu rëy bi ñu toogaatee gis suñu gis parents yi toog dañ ci am contentement encore une di remercier staff technique bi nekk école foofu jaamu xale yi ah, di jël suñu père Moustapha Cissé bi nekk depuis Espagne parce que lépp moom la. mais mu jaay ko ci Singo aussi moom tamit mu gore lool teg ko suñu loxo man maa ngi tudd Daouda Samb dëkk fii Kër Massar nekk ko coach principal coach su aji coach su kaar waaw di am contentement bu rëy nag tey parce que Moussa defati na lay wax defati na parce que defoon na defoon na defoon na mais tey dafa defaat lu gën a rëy lu gën a rëy defaat tey parce que euh, joxe dafa neex mais nga xam ni ñu koy jox kii parce que li may wax ñoom ñu demee wax toujours maanaam ku nekk na xam ëllëg li muy def ak ëllëg ki koy jariñ waaw ñun ñëpp tey ñun ñoo fi nekk mais soo mën nañ jariñ ñeneen ñu ñun parce que mën naa xëy jógee fi mun naa xëy de waaw Moussa nag dañ koy remercier bu baax baax di ko ñaar yàlla suñu borom mu yokk ko parce que euh, xam na ni moom Kër Masar dëkk xam na ni lii académie Kër Masar a nekk xam na ni ay doomu Kër Masar ñoo fi nekk ak jarwaatam ay doom ñoo fi nekk mën na ko def feneen mais du safoo mais fa lay safee ne fii lay safee ci Kër Massar waaw ah, dafa ci nag mais ñu koy ñaan yàlla mi xam mu am kattan mu am dooleel mu dooleel ko ba déwén mu def lu ëpp lii te gëm naa incha allah dina kii ñu koy ñaan gudd fan ak ak wér-gu-yaram waaw ah, boo amee loolu rek gëm naa déwén après dina yokkaat dina yokkaat baax a baax ah, nag sama gars yi Singo commando ak gars yi parce que président Cissé wax rek la am. ak ak ak ak taxawal mais Siroo mi nga xam ne moo gore tey ba fekke ma ma toog mu mu wóolu ma ne ma kaay moo ñëw mu teg ma ci fii ne ma yow yow laa wóolu kaay teel ma ñii vraiment moom tamit dama koy remercier ak ma commando parce que loolu yombul yombul man benn nit damay juum mais confiance bi am ci man ba ba teg na ma kaay teeku mais bu mënu sax damay jéem parce que loolu la foor te ñi ay jigéen lañ te jigéen lu lu tilimal deram dafa yomb mais bu yàlla defee nag mu tekk sama loxo nag ñuy góorgóor man sama ñaari côté yi taxaw nii ñuy góorgóor chaque jour te jëfee ñuy góorgóor di encouragé di sàmm ba yàlla tey def lii tey dañuy gën a kontaan mais en tout cas une fois di gërëm gërëm Moussa kii Père Moussa di ko santaat bu baax a parce que tey suñu xol dafa fees dañoo am contentement bu rëy parce que moom fukk la si ñun bu ñu amatee yéen fukk nag mu nekk 20. nee ne néew bu ne ma jëf yi gën a kii de mais ñooy nekk ca kaw xam ñun fukk la si ñun moom fukk la si ñun parce que li mu def nii yombul yombul de yombul kon nag dañ koy jaajëfal di ko ñaar ak sax mi àndal ñëpp jërëjëf baax a baax waaw sans plus jox gars yi ñu jël kàddu ñu barkeelu ci. kon lu def wax rek man du ma am leen loo xam ne maa ngi ko siy dolli am na loo xam ne tamit xel moo koy motali. gis ngeen lu euh, tonton Moussa lu mu def yàgg na koo def mais du tey la ko def lii nii mu tax mu def ko mooy ngeen gën a jàng ngeen gën a gëm seen bopp ñëw di jàpp si équipe bi du kenn moo ko mën loolu rek war na leen mën a may nga xam ne ngeen xam seen bopp bu baax a baax aussi tamit lii lu tax ñu def ko mooy ku si nekk war ngaa mun a xam sa bopp chaque jour dama leen koy wax il faut ngeen concentré bu seen jàng loolu moom mooy suñu fierté après lu des dañ koy waxtaanee du dara nag dañoo bugg yéen ngeen réussir seen bopp tamit du euh, président waxoon di wax da da ngay am da da jigéen da ngay am diñ nga respecté sa bopp gëm sa bopp xam yaay kan loolu chaque jour day ñëw teere di leen ko incité di leen ko wax kon góorgóorlu leen ngeen jàppale ko waxuñu ñun sax mais ngeen jàppale ko moom aussi tamit ngeen ñaanal tonton Moussa lu muy def mu gën koo yokk tamit ngeen góorgóorlu dégg ngeen merci. man maa yaayu maam jaara maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu li ngeen def sama doom bi ma nee damay dem école de foot bañu ndax xam naa moom mooy kan xam naa ni fulla ak fayda bi ne ci mu ngi ci moom ma leen di ñaan yéen tamit yéen ñëpp ngeen di liggéeyee fulla ak fayda am jom ci li ngeen di def football ngeen bëgg ngeen góor góorlu si ngeen ñafe si mën naa ànd ak njàng mi pourquoi ñu ne l'homme douze métiers femme mën na def six métiers boo déggee ma ne femme six métiers mënuñoo ma mënuñoo tolloo ak góor ñi góor mën na dem ba guddi nga wàcc mais ñun boo gisee ñun ma ne six métiers dañuy xalaat njaboot bi suñu ginnaaw ndax njaboot bi suñu ginnaaw il faut ñu leen di tete mais boo nee damay liggéey suba ba guddi du sotti day am lu manqué sa kër te ëllëg yaa ko def sa bopp di leen di ñaanal nag lii ngeen sumb yàlla jàppale leen si ngeen am si barke ci ndey ak baay toog ba ñu teral ndey ak baay ci barke Seydina Muhammad maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di remercier suñ président ak autorité yi toog nii di remercier aussi président Moussa kamara parce que gis nañ jàppale bi mu ñuy jàppale parce que bi mu bi mu buggee ñëw terrain wax nañu moom moo bëgg a doon suñ parrain te yaakaar naa bu nekkoon si wax kese bu yemoon si wax kese tey du def lii donc ñu koy remercier bu baax. Hmm. par rapport ak académie bi nag lu may wax ñun jeunes ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. académie bi ñu famille lañ quoi bu ñëwee entraînement la ñuy def neexal ko après ça va ku nekk dem ñibbi donc coach si tamit ñu leen di remercier bu baax a baax parce que bàyyi wuñ ñu mënoon nañ sekk entraînement kese après ñu ñibbi mais ku si nekk da ngay nemmeeku joueurs yi di xool si luñ nekk boo amee conseil boo leen di jox nga jox leen ko par rapport ak jàng bi société bi lépp donc ñuy remercier ñëpp rek ñi xam ak ñi xamul ñi jàpp si académie bi ñëpp à travers ma euh, ñu ngi nuyu d' abord le président Pape Moussa Camara moom moo nekk ni ak invité yi ñu mu àndal notamment Baka ak euh, ñoom Mbenda ak sama ñoom tànt ak tonton di ci teg élèves yi wala wala joueurs yi parce que maa leen di remercier seen teewaay di leen encouragé comme d' habitude parce que nekk xale terewul nga am jom. nek xalé aussi terewul nit nga comme mag té da nga wara magé ci xalat ci ci xel té je crois que ni loolu motax tax ñu exfi fii ñun ak yéen di remercier nak parents yi yi téwul ak yi téw surtout parce que temps dafa jafé li tax ñu woo leen pour dajé ak yeen nekul parce que da ngay na manké kay yu ngeen jëndal seen dom xalé jang jàng nañ plus de 7 ans ba presque 10 ans chaque jour yeen a ngi jënd ay kay yu mat sëkk mais li kay ni prétexte la lu da ngeen ko manké mais moom moo war a mun a nekk loo xam ne dinañ leen ci woo mën a waxtaan a yéen ci cadre xale yi pour ngeen comprendre ko noonu du da ngeen a manqué la wala da ngeen a néew le voilà ndax yàgg ngeen mat le macha allah mais remercier encore président Pape Moussa parce que quoi qu'on puisse dire que Moussa bëri na autorité mais dañu ngi def politique mais politique sociale lañ deful politique de parti et de couleur la ñuy def mais moom sociale lay def moo tax ñun ak moom ñu jàppante moo tax tamit ñu jox ko cër bi ñu ko jox parce que ñun gaawuñu joxe cër parce que ñoo xam ne mérité wuñ cër mais moom mérité na suñu cër parce que moom mom ko liggéey moom ak ñi mu àndal ñëpp di remercier aussi président Cissé Moustapha Cissé depuis Espagne parce que tamit lu jig njaagam mooy njaag parce que quoi qu'on puisse dire am confiance ne xaaral ngi commando Shingo ak kal Kaal Aji ñoom Daouda ak waa équipe africanité bi yëpp pour ñu ànd liggéey si cadre xale yi prétexte bi léegi dañuy def football mais football bi pour parents yi comprendre que ni kubal wekk bal topp ci football bi dañ ko toujours pour mëna dajalé xalé mais laaj leen ñom ñi chaque jour dañ leen wax né ku nekk na nga fexé nekk champion à l'école bala ngeen ñu respecté respecté leen sen papa ak sen yaay pour parents yi comprendre bu baax ñun bu ngeen ñu joxul cër sax amul parent parce que ñun ñi ñu war jox cër dinañ ñu jox cër moy suñu wa kër yi ñi ngi ni tok sen doomi yi leen kenn duñu weddi parce que day baax des fois ñun ak yeen ñu xawa communiquer mo waral dajé bi pour ngeen xamné xalé ñi leen yor ñaaxu ñu fulla ñaaxu ñu fayda té waw ñi leen ci ñaax fayda du question nak dañu am motax duñ len laaj dara té tamit ñaan nañ yalla duñ len laaj dara gis ngeen seen doomi chaque jour ñi ngi sol ay moyens de qualité ay dal des ñu wut ay ba jox len ak lenen ak lenen lu ci bëri Espagne lay jóge récemment lañu Pa Moussa diñ jappalé ci yi ngeen mujjé gis non équipement bi ngeen gis mu nekk ci suuf yakana naa na ko jëndal ak ay dossard ak ay dossard moom moko jënd ba pare jël na engagement mu wax leen benn affaire keroog wax na leen ko fii donc parents yi day baax ñu dégg ko nee na ku ci am moyenne 18 18 dina la jàppale ci sa njàng. kon da ngeen a war a góorgóor ngeen xëccoo génne ay 17 wala ay 18 yi bëri ndax moom depuis ñu xam ko li muy wax yëpp mu ngi koy def su mosuñu wax mu dañ waxam nag gaawul. donc da ngeen a war a gën a concentrer cette année ngeen xam ne am ngeen parent bu am jom. ndax am ngeen ay staff yu am jëm déggoo leen commando si ñàkk fu la du daaw da ci ñàkk fayda wala kalidu ba ci man mi gën a tuuti ci ci ci ci seen groupe bi ñoom ñu kan kenn ñu fii kon da ngeen war a fexe à l'école ngeen jàng 12 mois yëpp te du ñu woo seen yaay du ñu woo seen papa naan ko kii daa retard wala daa daw il faut ngeen encourager ñu te noonu rek ngeen ñu mën a fayee te fayeeku boobu damay rafetal mais loolu tey ku ci réussir ci yéen lu mu njëkk am yaayam lay jox wala papam parce que chaque jour loolu la leen ñaax. da ngeen fexe dañuy tëj un mois daaw da wax na leen ko tey la ñuy tëj le 19 le 19 la ñuy waat si kattan yàlla da ngeen fexe ba bu ngeen demee à l'école premier composition yi bu leen ñu fi andi résultat bu bon andi leen ñu résultat parce que ay ngeen ay ambassadrice ngeen gis nga lu may tooñee léegi kii nu mu tuddati euh, yaa nago ya voilà dama koy tooñ mais tooñ bu am solo la dañ koo ko romb ci mbedd muy fubal ak ay góor tey dugg na avion ndax football ci ndimbalu yàlla ak mbaaxu coach yi ak ñoom commando loolu du lu rafet ngeen foog mais loolu yéen ñëpp a ko liggéey parce que bu ñëwee ci équipe bi paasoo leen ko bal jàppale woo leen ko déggoog moom nekk une famille bi euh, kii wax sànq faatu wax kon du du woon am opportunité bi kon travail d'équipe la mbooloo mooy doole kon yéen a ngi dem école. dafa mel ni mbër bu ñëw yónni làmb ja fexe leen bi ngeen di ñëw ngeen andi ñu ay résultats yu baax ci premier trimestre bi encore une fois insisté naa ci du ma guddal nag dañuy delluwaat di sant yàlla bu baax ndax suñu ay ndijaay ak suñu ay moom dañoo fubal ba màgget fii mosuñoo sax seen jaraaf kon yàlla suñu dimbalee tey mosuñu am sax tamit ku leen jàppale jëndal leen moyen lu dul politiciens yenn yi ñoo fay jaar jëndal leen après jox leen ay t-shirt ak ay pancarte ñu daw ba ba ba leen leen jëndal far yàqu ci naaj bi mais c'est pas le cas avec président Pa Moussa kon maa ngi remercier encore ñoom commando man dañ maa ne jiiteel ñu rek waaye gënuma leen ndey gënuma leen bàyyi ëppalewu ma leen dara su ma nee commando bàyyi ma ñoom daawud ak keneen amaana maa gën a nekk nulaar gën a waaye di ci groupe bi mais yàlla moo def seen si seen xel ñu xaw maa wóolu yàlla yàlla yombal wóolute boobu di remercier caméraman ni di remercier président Pa Moussa ak staff bi yëpp di wax président kontaan nañ on est très trop fier de vous et que li nga mën na la ko yàlla gënal yombal gën na kàttanal gën la dooleel gën tamit boole la ak ñii nga àndal parce que ñii bu ñu gore di woon ba ñu nekk ay seytaane nga baal ma ci terme bi parce que am na président yu am ay staff yu bon kon li nga def doo ko def wala soo ko neeree def du demee nii voilà lool daal laa bëggoon wax di di leen félicité élèves yi encore di féliciter staff bi télé bi rajo bi ak euh, entraîneurs yi donc di jox micro bi commando c'est bon waaw nuyu naa leen yéen ñëpp di tàmbalee samay nuyoo ci président Pa Moussa mi nga xamante ni lu njaaga mooy njaag ci li ñuy def di nuyu staff bi ñu àndal di wax ñi buñ fi bëggee nekk di waxaat pratiquement li ñu wax war a wax lépp dégg naa commando wax na ko Josi capitaine bi surtout wax na ko et dama ni tey sax moom damaa xaw a maa ngi mel ni ku parce que li ma ci suba ba léegi ñu ngi ànd équipe bi jàkka bu nekk ci dëkk bi wala juma par Musa Moussa yebal nañu fa ñu yóbbu fa ay tonu ciment yu bare pour jàppale leen ci loolu la ñu yendu ba nga xamante ni ni wax ji bare surtout ah li ma di wax rek Dakar la vil ville fu muy liggéeyee rien que pour ñëw assister leen ci terre bi la jël bàyyi otoom ci bi terre bi mu bu jógee fii ci kàttanu yàlla noonu lay jaariwaat liggéey donc da ko def rien que pour respect bi mu am ci yéen donc ñuy ñu koy ñaanal rek ah di ko ñaanal yàlla bu ko dara dog ci yéene yu rafet yi mu am ci Sénégal sax laay wax parce que yéenem ci dëkk bi dafa dépassé commune donc ñu koy ñaanal rek yàlla na yàlla mottali yéeneem ñu may ko mu sànni ci ay kàddu rek delluwaat ci liggéeyam maa ngi nuyu sama jarbaati eh, fi toog nii yëpp si yéen laay jiital nuyoo bi quoi ndax yéen a ma tax a jóg donc di leen remercier aussi si seen teewaay mais di remercier aussi tamit seen wayjur yi nga xam te ñoo ngi ak ñi nga xam te ni ñëwuñu yëpp bon du ma jël encore cadeau te remercier wu ma aussi tamit staff ma àndal ak ñi eh, ma fi fekk muy ñoom Shingo commando bon ak Daouda bi nga xam te ñoo fi eh. ak euh, l'équipe de Nité TV yëpp maa ngi leen di remercier kenn ku nekk si turam ak santam aussi bon di am fierté aussi pour teew seen biir c'est parce que lii nii aussi yombul ndax je pense que l'avenir de ce pays si seen loxo la nekk et que ñun ñii tey par exemple tey suñu wàll jeex na tey bu ñu sonnee yéen a tax ñuy sonn donc encore une fois ni ko Shingo waxee donc respect bi yëpp di yéen lañ koy delloo ngeen xam yéenay ñan d' abord ndax seen euh, morom bi toog fii taxawoon fii léegi wax na ko donc lu ñu ñii mën si ay conseil ak xalaat loolu rek lañ leen mënal ndax duñ leen fi jox loo leen fi amul duñ leen defaral lu leen yàlla defarul ndax ku juddu si sa nday ak si sa baay yaakaar naa sa papa ak sa yaay sax yoruñu sa wërsëg mais ñoom yor nañ sa dund donc wërsëg yàllaa ko yor te yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko. donc encore une fois di leen encourager mais aussi tam di len wax ni gën gëna góorgóorlu déjà mën naa référence ngeen ci li ngeen di def ndax ba ngeen doré ba légui ni je pense que nekkoo leen fi tey école de football bi nga xamante yéna ko fi ñëk créer am na ñoo xamante ñoo fi jitu mille fois mais chance bi ngeen am tay ba ñu mën leen tay def référence ba ngeen am ben joueuse bu génn fii dem à l'équipe nationale am manière ñoo pendant des années te ba fi may waxee yow ni donc encore une fois pour vous dire le travail continue et que tay bo leen gëné gorgolou, je pense que du doon ki mais nous nak nak mën mais affaire bi ngëm la rek si kenn ku nekk ci ko ni yaakaar la je pense que réussite mën encore une fois sans étude aussi day am lu manqué ci seen carrière c'est parce que professionnalisme dafa baax ci lu ne moom mooy moom la ñuy wax xam-xam yàgg naa di ko wax nee naa nit bu demee ba nekk nit kese tax xam-xam nekkul ci moom daanaka boo ko xoolee tey par exemple nit jëm nit rek ngay gis mais nite bi nga xamante ne moom la ñu yaakaar ci moom dootu fa nekk donc encore une fois ñu leen di lancé un appel ngeen bàyyi xel aussi ci seen éducation mais aussi tamit ngeen gën a góorgóorlu te xam ne éducation bi moom mooy la porte de réussite de votre carrière encore une fois maa ngi remercier ñëpp di leen sant di leen gërëm ndax mooy guddi ah jërë ngeen jëf.